daal leen ak jàmm Saint-Valentin fête nañ ko démb ci Sénégal 14 février fépp foo tourné ci Sénégal yaa ngi doon gis rouge ak noir ñi ko gën a fête bokk na ci artistes yu Sénégal yi artistes yi nga xamante ne bi génne nañ ci ay clip ku ci mel ni Wally Ballago Seck génne na clip boo xamante ne bi clip baa nga tudd waaye not mu ci rendre hommage les amoureux Pape Diouf Superman Love di clip boo xamante ne bi moom itam clip la bu taaru boo xamante ne bi boo ko xoolee rek Pape Diouf xam ne préparé na ko te itam clip la bu mucc caay waaye way waa gënoon a neex daanaka ba mu génnee wayu ba tey ñëpp a réclamé clip bi ci 14 février jëlee leen pabal clip ba Superman Love fu di clip bu taaru bi Sénégal yëpp ko apprécié ñëpp a ngi koy enjoy di ci gis seen bopp démb ci 14 février bi DJ Boubso ma ngay njaay cekke Pape Diouf ak di ko tooñ naan ko Pape Diouf bi nga xamante ne bi dafa nobaate ba fa mu njëkkee gisee soxna moo di Gambia waaye ba mu gisee soxna sa dafa di daanu xam sapeur pompier ñoo ñëw jëlee ko foofa Pape Diouf ba mu njëkkee gisanteeg bébé baas dafa daanu xam ci ab plateau di njaay cekke ak tooñ ki nga xamante bii mooy Pape Diouf moom ak doomam jooju di faatuwa waaye ma ngay wax itam ca kilibu Pape Diouf ba nee na Pape Diouf daanaan la loo xamante ne bii ku mën a way la te itam réew mi kenn dàqu ko fee way Sidi Diop itam kenn demul mu des ndax it Sidi Diop génne na beneen clip moom itam ci même jour bi ci 14 février bi Saint-Valentin bi Sidi Diop itam génne na ci clip clip boo xamante ne bii ma nga tudd nobatina ñetti waykat yooyu di Wally Ballago Seck Pape Diouf ak Sidi Diop ku ci nekk génne nga ab ko ci loxo Sénégalais yi tëmb ci 14 février keneen wax ci 14 février di oustaz Modou Fall oustaz Fall ma nga doon wax ci Saint-Valentin nee na Saint-Valentin ràññeewuñ ko ci l'islam te it amut fenn foo xamante ne bi def nañ ko ci ne feetub jullit la te ñi ko dàq feete mooy ñi nga xamante ne gëmuñu mbëggeel te mbaraan képp la ñu gëm ñoo dàq feete Saint-Valentin ma ngay jaay cekke moom itam a tooñ naan célibataire yi ñoom ñi nga xamante ne bi féeteeguñu fenn ñoo dàq feete lii di Saint-Valentin waaye li mooy saint amul fenn fu ñu ko def ci l'islam bégal sa soxna nag ak di ko joxi kado di ko teral lam aayewu ko benn yoon ndax lépp loo xamante ne bi yaa ngi ko def ngir neexal sab sëy rek doole le l'islam ànd na beneen ku ñu gis mu fête Saint-Valentin wala beneen couple boo xamante ne bi ñoom itam seen Saint-Valentin mu ngi ne fàng ci internet bi muy ki nga xamante ne bi mooy DJ Pi les jumeaux PNJ kanuy wax Pi ak jabaram ji di Eva ñoom ñaar ñi nga xamante ne bi nee nañu génn nañu dix ans de maanaam fukki at ñoom ñaar la ñu ànd di ngoro ba nu séyeg léegi bat na ñeenti at ba tey ñu ngi gën a bëggante te itam tey jii la ñu gën a sentirante ku ci nekk yaa ngay wax mbaax gi xamante ne bi moo nekk ci sa morom waaye itam bëgg gi nga bëgg sa morom ña ngi ko doon fësal démb ca plateau boo xamante ni bi ña ngi leen ko invité woon te TFM ka ñu ko doon séqal di Pape Cheikh Diallo ci Pape Cheikh Diallo lay des Pape Cheikh Diallo mi nga xamante ni bi ci 14 février boobu di bésu Saint-Valentin ca la juddu moom itam doon ci fête anniversaire am Pape Cheikh Diallo di wax naan li ma judd ci bésu Saint-Valentin moo tax itam maam xol bu rafet moo tax ma bëgg ñëpp waaye itam moo tax maam joie de vivre ci bésu mbëggeel ci laa gane àdduna li lee waral sama xol bu rafet bi waaye itam sama coow lii damaa gëm rek ne Serigne Fallou Mbacké la Pape Cheikh Diallo wax nee na Serigne Fallou moo borom kazu moo waral coowal Pape Cheikh Queen Biz itam gis nañu ko mu def robb bu xuus boo xamante ni bi dañu koo fant fant bu doy waar Queen Biz moom la posté di ñaanal ñi nga xamante ni bi ñooy ay followers am ak leen souhaiter bonne fête de Saint-Valentin coow li fi doxoon diggante Soriba Soriba càcc ga nga xamante ni bi dañ ko ko doon ji ngale di ex ménagère am wax na ci wax na ci lu yaatoo yaatu ex ménagère Soriba nee na ba nga xamante ni bi dégg naa ñuy jaabaa jonge coow li nga xamante ne bi naan Soriba moo sàccam sàccul ba ma gisee vidéo gis ci vidéo yi du Soriba te itam man ak Soriba laata loolu dañoo toog waxtaan Soriba xamal ma ne ma coow li nga xamante ne bi li nga ma koy tuumaal laaleewu ma ci te itam taqeewu ma ci na man nag bàyyi naa lépp ci loxo yi yàlla ka nga xamante ne bi mooy ex ménagère am ba nee na Soriba ba mu waxanteeg man ba noppi da mu wax laa gam te itam man mi nga xamante ne bi maa visionné vidéo yi ka ma cee gis amul lenn lu mu nuroog Soriba moo tax dama Soriba wax moom laa gëm coow li bari bari gaw ma ne Soriba def jëf ju ni mel bébé mi fi doon bañ ñitu Thiès bébé si mi nga xamante ne bi mooy doomi Thiès yéenekaay ji BBC mi fi gënnoon di kaas ci wàllum nitu gis nañ ko ci ab robb boo xamante ne bi sol na ko mu doon robb de mariage ñëpp naan BBC dafa marié te itam ma ngay wuyoo madame Ka BBC ginnaaw ak divorce goo xamante ne bi déggoon nañ ko ci moom déggaat nañ ne BBC marié na en tout cas gis nañu ko mu sol robb de ñëpp a ngi naan BBC léegi mooy madame Ka ñenn itam daanaka gëmuñu boobu mariage ndax ña nga jàpp ne BBC dafay tourner ab clip ñenn ñi jàpp ne shooting la ñi jàpp ne ab tournage série la lum ci man di doon bébé si posté na vidéo yooyu te itam yëyul yàbb ci ba tey àdduwul ci moomi la mbir newul woow na newul tooy na kenn dégg ko mu wax ci mariage bi nga xamante ni bi ñi ngi naan am nag amul lum ci man doon vidéo yaa ngi ne fàng ci internet Saint-Valentin ka ko fete di Pabou Cissé Pabou Cissé kor Marie-Louise Pabou Cissé gis nañ ko moom itam mook Marie-Louise am ñaar ñuy dund seen mbégte nekk ci seen oto di fecc ak way waaye itam gis nañu Pabou Cissé indi ab kado boo xamante ni kado bu poupée la bu ñu def rouge ak noir ko ki nga xamante ne bi bi mari Marie-Louise Diaw Sénégal yëpp di ci commentaire naan lii lee dafay waral rek ne couple bi mooy couple bi gën a immature waaye mooy couple bi nga xamante ne bi gën a am joie de vivre ñoom ñaar seen a joie de vivre dafa jéggi dayoo ba jaaxal askan wi ñoom ñaar foo leen fekk dafa nga wat ne couple jeune lay tey tam couple la boo xamante ne bi ci bànneex ak mbégte rek la ñu dëkk beneen couple bu dëkk ci bànneex ak mbégte mooy couple Xaadim seen ak ki nga xamante ne bi mooy Marichou Billy ak mari Marichou gis nañ leen ñoom ñaar benn vidéo boo xamante ne Billy daf doon prank soxna se itam prank ba réussir na na ko ndax dafa ñëw indil ko ab kado takkal ko jamaa ba noppi ne ko nag daa am loo xamante ne bi dama la ko bëgg a yëgal dama demoon tey siyaare ji sama sëriñ sëriñ ba nag lam ma wax mooy daf may takkal ñaare te itam takk na ko ba ma bëggoon ci waxtaan ak yow ci la Marichou ne toon jóg songu xaadeem ne ko doo gor tey tey itam doo gor ëllëg li wette wër mooy balaa mu laa wutal na takkal boppam loolu duma ko seetaan tey tey tam duma ko seetaan ëllëg tàmbale yak borom këram lu mel ni xame naan ko doo gor tey tey tam doo gor ëllëg li ma daj ci yow yëpp yaa ma sañ a takkal ñaare la bili dellu si waat naan ko li ab prank kese doon kaf ak yow dama doon xool rek foo toll ci man waaye lii di rak ak mbirum ñaareel bu yeboo nga teg ko ci suuf ndax du am tey te itam du am ëllëg xaadim seen fas yéene wu a takk ñaareel tooli fi doxoon diggante mbaroo di ak kalistasi kalistasi mi nga xamante ni bii ab réalisatrice la woon dafa nga xamante ne bii mooy mbaroo di bindoon série boobu di maîtresse d'un homme marié ñoom ñaar seen procès bi nga xamante ne bii moog waa mbaroo demoon nañ ci yoon yoon mujjee na tranché ki ko gagné mooy kalistasi kalistasi ci bambaro di war a verser li nga xamante ni bi mooy somab 21 millions teg ko ci loxoom Choco no stress wax na Choco no stress wax naa tikkalaaw be nee na ko génnal ci sayub jàmbur nekkul ci sumbula tikkalaaw be sama xarit waaye nag li nga xamante ni bi moo diggante Abdoulaye Diop xaas ak ki nga xamante ni bi mooy sumbul ci war a maanu nga génnal ci coow li sa yoon nekku ci tey te itam sa yoon nekku ci ëllëg loo wax sumbulu yaa ko tooñ boobu maag sumbulu wala dama mere sumbulu sax yow tikkelaw bi yow moom du yow yaa war a wax jëmale ci sumbulu génnal ci sumbulu ba set wecc sa yoon nekkul ci moom Amina Poté dellu si gi nga xamante ni bi dellu si waat na ko ci liggéeyam bi ci TFM boole na ko ay révélation yu doy waar na ñi nga xamante ne bi lu ne doon naa ko dégg ñenn ñi naan dañ maa frigo naan dañu maa dàq li wétte wóor mooy relation yi nga xamante ne bi naa ko ak groupe Futur Média fi mu nekk nii jëqatuñ ay góor ak ay dàq ndax groupe Futur Média ma jàpp rek ne groupe Futur Média c'est ma famille groupe Futur Média relation yi ma am ak ñoom romb na fi mu nekk ay relation patron ak employé waaye groupe Futur Média dama bokk ci biir te itam c'est ma deuxième famille Mbàkke Bawol ak Ousmane Sonko bam fa ñëwee coow li nga xamante ni bii xewoon na fa ndaw yo fipp woon ngir di xeexal Ousmane Sonko am na kuñ ca teg loxo koo xamante ne bii la ñu koy toppe rek mooy moo yoroon camion xeer boo xamante ne bii moom la doon ba mu fees mu koy indil ndaw ngir ñu mën a jàmmaarloog takk der yi borom camion xeer ba ci boppam jàpp nañ ko fi mu nekk nii ma nga ca garde ca commissariat Mbàkke Bawol Assane Diouf moom itam génn na li nga xamante ni dof dañ ko war a ci nu gën a gaawe nit dof ku ñu war a libérer la ndax itam tooñul tey tey itam tooñul ëllëg jaay doole gi nguurug Sénégal nekk la ñu war a kay wax di Assane Diouf génn na solal robbu avocat nit dof dinañ ko libérer ci nii mbaa ñu ko ci naa beneen avocat di maître El rajee nee nañu maître El Hadji Diouf erreur yu bëri yi nga xamante ne daf koo def méritootul muy nekk avocat ka nga xamante ne bi moo nekkoon avocat Adji Sarr fi mu nekk doonatul avocat mbégteeg banneex ñu koy gis ci abindour abindour ci Saint-Valentin bi ki nga xamante ne bi mooy goraam maanaam ki takk doomam ju jigéen moo ko indil cadeau Saint-Valentin ni ñuy joxe cadeau saint sa borom kër mbaa nga koy joxe soxna moom gorom bi noonu la ko indil jox ko cadeau boo xamante ne bi ñu ngi gis sa abindour mbégteeg goo xamante ne bi moom la doon waxee ñuy échange te ay kàddu mu naan ko léegi laa toog dégg ci télé bi ngay wax sama mbaax abi nduur naan ko fu ma toll si wax sa mbaax laay dëkk ndax itam musuma gis goro bu mel ni yow goro bu baaxee ni yow benn la ci Sénégal